أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجي عندك ين تسنو درس بتاي mooy bunta fanweer ak ñett ci wax yàlla tabaraka wa taala bi muy wax alam tara ila allazina yazcumuuna annahum aamanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna an yataxaakamu ila taaxut tey ñuy jël aaya bi tegu ci dars bi passé ne wala tufsidu fil ardi baada islahiha al araf 56 sunu borom subhanahu wa taala mu ngi ñuy wax ci téeréem bi ci saar boobu ñuy wax al araf ayab juróom fukk ak juróom benneel mu ne wala tufsidu fil ardi bu leen yàq suuf si bu leen yàq ci suuf si baada islaahiha ginnaaw ba ko yàlla yéwénalee ba ko yàlla baaxalee ko ndigal la bu bàyyi koo ci yàlla dikk ci jaamam yi yàlla di sàkku ci ñoom benn mbir mooy yéwénal suuf bañ koo yàq defar suuf bañ ko yàq suñu dars bi passé ci loolu la doon wax tey ñu bari ci kaw suuf suñu déggee aaya bi wala tufsidu fil ard baada islaahiha bu leen yàq suuf ginnaaw bu ko yàlla defaree dañ ci am yeneen i déggin ci ay sotti mbalit ak tilimal suuf seeg yàq environnement bi donte ne ci la bokk waaye li gën a rëy li yàlla di wax ci yàq suuf mooy lii di ñëw ci dars bi qaala abu bakrin ibnu ayash fil aaya kenn ci sëriñ yi ku tudd abu bakar ibnu ayash nee na aaya bi li muy tekki inna allaha baasa muhammadan ila ahli al ard wa hum fi lfasad nee na ba yàlla di yónni yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam ci waa kaw suuf dafa fekk waa suuf yépp yàqu nit ñi ñoo yàqu mais du suuf si moo yàqu wa hum fi fasaad daf leen fekk ñu nekk ci yàqute comme tey nee na yàlla yónni yonent bi fa aslahahumullahu bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yàlla baaxale waa suuf ci muhammad wa kuntum ala shafa xufratin min annar fa anqazakum minha jamono bi yàlla di yónni muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci jaam ñi dafa fekkoon ñépp jëm safara boobu buñ ko doon misaal dafa mel ne teen safara nekk teen nit ñi ñëw ba ci pind bi buntu teen bi taxaw nga xam ne ñëpp pare nañ pour dugg ci jamono jooju la yàlla yónni muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ñëw daal di sëve jaam ñi la ko topp rëcc ña ko ñàpp ñàkkoon topp daal di tàbbi ca teen ba ca safara soosu daal dem jahannama mu ne yàlla yónni muhammad ci suuf si mu ñëw baaxal jaam ñi waaye nan la leen baaxalee fa daahum ila xilaafi ma ja fa man daa ila xilaafi ma ja bi muhammad fa huwa min al mufsidina fi l ard kon yàlla dafa yónni muhammad sallallahu alayhi wa sallam jox ko programme yonent bi programme boobu bi mu ko indee ci la baaxalee waa suuf mu ne instant yi nu toll fa man daa képp ku woote ila xilaafi ma jaa bihi muhammadun sallallahu alayhi wa sallam ci lu wuute loo xam ne dafa wuuteeg li muhammad indi kooku fa huwa min al mufsidina fil ard kooku ci yàq suuf la bokk kon muhammad alayhi salaatu wasalaam sunu yonent programme bi mu yor képp koo xam ne loo mën a nekk ci àdduna nekkal jullit nekkal lu la neex sa programme bi nga yor dafa wuuteeg bi yonent yàlla muhammad indi kon yow yàqkat nga fa huwa kooku minal mufsidina fil ard ci ñiy yàq suuf la bokk lu tax lii baaxal suuf yàlla jox na ko yonent bi ba pare te leer na nañ ñi ne yonent bi programme bi mu indi woon mooy baaxal suuf ndax ñamu fu fekkoon baax nañu 124000 yaru nañ ci keppaaram ñoo xam ne tey ba léegi àdduna bi mënul am ñu mel ni ñoom kon kay la mu indi woon baax day baaxal nit wa qaala ibnul qayim qaala aksarul mufassirina sëriñ bu ñuy wax ibnul qayim nee na li gën a bëri ci firikati alquran yi bi ñuy firi aaya bi wala tufsidu fil ard baada islahiha nee nañ laa tufsidu fiha bil maasi bu leen yàq suuf ci ay bakkaar kon def ay bakkaar day yàq suuf wa du'aai ila gayrillahi woo nit ñi yóbbu leen jëme leen ci lu dul yàlla day yàq suuf kon ñaar yi képp ku ko def ci kaw suuf yàq nga suuf si ku fi mooy yàlla yàq nga suuf si ku woo jaami yàlla yi yóbbu leen ci leneen lu dul yàlla yàq nga suuf si kañ la yàlla baaxal suuf si mu ne baada islaahiha allahu iyaha bi baas bi baasi rusuli yàllaa ngi baaxale suuf si ci yónni gi muy yónni yonent yi gis nga yonent yi cent vingt quatre mille lañ ñoom ñëpp programme bi ñu indi mooy suuf baax képp ku ñëw ci ñoom rek li muy tere mooy lu yàq suuf jëlal aadama jëlal nuux jëlal yonent yëpp képp ku ñëw lan ngay dégg yàlla di nettali ci alquran lan moo doon mission mooy ne nit ñi jaamu yàlla bàyyi bokkaale ne nit ñi bàyyi sàngara ne nit ñi bàyyi njaaloo ne nit ñi bàyyi fen ne nit ñi bàyyi jëw ne nit ñi bàyyi sàcc maanaam jik yonent yi lan lañ indi mooy makaarimul axlaaq lii baaxal nit bu ñu yaakaar ne àdduna bi lu koy defar ñun xam nga tey bokk na sax ci suñu politiciens yi suñu njiiti àddina yi li tax ñu échec mooy dañuy jàpp ne defar dëkk bi defar ay tali defar ay train defar ay autoraay defar ay defar ay defar ay mooy baaxal dëkk bi ñoom loolu lañ jàpp fekk dëkk bi li koy baaxal mooy defar nit ñi aka neexoon ñoo am président boo xam ne danaan man sama mission sama lan sama am na beneen baat bu ñuy wax sama programme mooy damay defar nit defaruma tali defaruma teen defaruma dara tabaxuma dara nit ñi laay defar ak neexoon parce que nit ñi bu ñu leen defarul bu ñu paree dañuy yàq ñaata yoon nga gis ñu defar dëkk bi ba pare bu ñu paree yàq ko kon kay dëgg dëgg dëgg li ñu war a tabax li ñu war a defar mooy nit ñi nit ñi nag lan lañ leen di defaree mooy ñu xamal leen yàlla. nit ñi bu ñu leen bëggee defar gis nga tey soo nee nit ñi ñi ngi jàng ñi ñu la waaw ñi ngi jàng de du dëgg ñaata école moo am ci Sénégal ñaata CEM ñaata lycée bëri na de nit ñaa ngi jàng est-ce que jub nañ lu tax jubuñ parce que programme bi fa nekk baaxul parce que lañ leen di jàngal baaxul moo tax nit ñi ku fa baaxe rek yàlla la bëgg ku fa baaxe yàlla moo jàpp ci sa loxo da ngaa bokk ci ñoo ñuy wax man allahu alayhim yàlla leen bëgg yee parce que programme bi depuis jardin d'enfant ba ba ngay am doctorat lan nga jàng ci diine lu lay baaxal d'accord ngeen ci amul lenn lu lay baaxal kon na ku fa rëcce nekk ab julit o yàlla la bëgg santal yàlla bu baax li lay tere dugaaje na rek mooy góorgóorlu na yàlla génne na la ba pare rëcc nga yaa ngi woon ci kàmbu jahannama yàlla yëkkati la dugal la aljanna kon yàllaa ngi baaxale suuf si ci yónni gi mu yónni yonent yi ak wa bayaani sharia ak leeral gi mu leen leeralal aw doxalinam aw tëralinam sharia du lenn lu dul ni yàlla bëgg nu dundee ko ni yàlla bëgg nu doxalee ko yàlla ni mu bëgg nit ñi dundee ko loolu mooy sharia yonent yooyu biñ ñëwee dañoo woo nit ñi ci topp yàlla moo tax fa inna ibadati gayrillahi wa daawati ila gayrihi wa shirk bihi huwa azamu fasadin fil ard li ñu war a xam ñun ñëpp mooy képp ku woote ci jaamu keneen wala topp leneen lu dul yàlla nga woo nit ñi ci bokkaale loolooy li gën a rëy tey li yàq société bi li yàq suuf si te tey looloo am tey suñu genn wàllu tariixa yi ñu am fii yépp su ngeen waxalee yàlla suñu genn wàllu diine yi ñuy woote yépp lan la def dafa yàq jaami yàlla yi waaye jubalu leen bàyyiloo nit ñi julli di leen woyloo di leen fecculoo solloo leen ay kenn xamut ah dugal leen ci na njaaloo boo xam ne dugal leen ci subhanallah wax leen jàq seen pas-pas yi yàlla jarta jaamu màkka jarta dem alxuraan jarta jàng wax gëm loolu ay nit ñoo xamante ne sa yaram day daw yéen a ngi koy dégg bis bu nekk di ko seetaan loolu mbokk yi huwa azamu fasadin fil ard li gën a rëy tey li yàq suuf si mooy lii nekk fii mooy jaami yàlla yi ñu jël wëlbati leen au lieu nu wan leen yàlla ñu wan leen leneen bal fasadul ard fi lxaqiqa innama huwa bi shirk bihi bokk yàq suuf mooy dëgg-dëgg buñ koy xool mooy bokkaale yàlla wa muxaalafati amrihi wuuteeg doxalinu yàlla yàlla ne nii la nga ñëw ne nii la xolal tey bi yàlla ne jigéen ñi nañ muur lan la nit ñi wax kenn muur bi yàlla ne nit ñi nañ julli lan lañ wax bi yàlla ne nit ñi nañ woor lan lañ wax bi yàlla ne nit ñi nañ ko topp nañ topp sharia am nañ attewoo téeréem lan lañ wax yooyu yépp am na kàddu yuñ ci teg bal sax yenn yi dañ koo faxas ba mu set daan ne loolu du fi amee kenn bu mu ñu ko fi indil bëgguñu ko fii sax chaque jour da ngay gis kilifa gu taxaw naan bu ñu kenn indil lu ñu xamul kon mooy bu ñu kenn indil lislaam rek ndax lii ñii di wax sunuy maam xamuñu ko woon ñu ngi seedal sunu maam lu bon yàlla ne nañu julli nañu jàng alquran nañu àtte woo sharia ñu ne loolu sunuy maam xamuñu ko woon kon ñun sunuy maam ci lan la nekkoon ku nekk war nga koo laaj sunu bopp ixwatal iman képp koo xam ne mu ne fa shirku wa daawati ila gayrillah wa iqamatu maabudin gayruhu wa mutaa muttaba gayru rasulillah huwa azamu fasadin aydan fil ard woote jaamu leneen lu dul yàlla samp ñeneen ñu ñuy jaamu ñu dul yàlla topp ñeneen ñu dul yonent mooy tey yàqute bi gën a rëy ci kaw suuf iqamatu maabudin gayruhu samp wala indi ñeneen ñi ñuy jaamu te du yàlla topp leneen wala ñeneen ñu dul yonent yàlla muhammad wa a'zamu fasadin fil ard mooy yàqute gi gën a rëy ci suuf bu yeboo ñu yëg ñun ñëpp fala salaha laha wala li ahliha illa bi an yakunu bi an yakuna allah wahdahu huwa almabud almuta bu yeboo ñun ñëpp ñu xam ne yarhamukallah wala salaha laha suuf du mën a baax bu nu sonn bu yeboo ñu def tali ñu ñu def tali bi mu nekk or tali bi nekk or territoire yi nekk jama oto yi ciy daw nekk xaalis bu yeboo ñu def loolu ah bu yeboo ñu def ay oto yi di ñuy naaw du tax suuf si baax jamais tali bi boo ko defoon or léegi gars yi dajji ko doo ko fekk wala oto yi boo ko defoon xaalis chauffeur bi nga ko njëkk a jox bu ko dawalee du ko dellusi wala kon kay nit ñi lañu war a defar moo tax mu ne wala salaaha laha suuf si du mën a baax wala li ahliha ñi nekk ci suuf du ñu mën a baax illa an yakuna allah wahdahu huwa almaabud lu dul ñëpp xam ne yàlla rek la ñu war a jaamu suuf si baax su ma xamee loolu nga xam loolu keneen xam loolu ñun ñëpp ñu xam ne yàlla rek la suuf si day baax day dañuy jub xocc gis nga sun borom lu mu wax wa an lam istaqaamu ala tariqati la asqaynahum ma an gadaqa walaw anna ahla alqura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakaati min assamai wal ard kon mbir mi leer na du tabax yi du projet yi du yi ñuy wax ay xawma Sénégal xawma plan émergent xawma du yi mooy baaxal dëkk bi waaw dëkk bi li koy baaxal xam nga la la mooy defar jaami yàlla yi jubale leen ak yàlla fexe ba nit ñi xam yàlla nit ñi bu ñu xamee yàlla rek dëkk bi baax kon su boobaa di nga gis ab milliardaire léegi bu tëdd fii ak valise su xaalisam di nelaw njaganaa yoo ko démb ci waxtu yi wala lu ko gën a sori tuuti yàlla daf ma nattu ma doon ut oto am na fa ma doon dem aw ma oto ma taxaw lu yàgg aw ma oto bu ndaw ma ne kon xaar ma dugg ci tata yi comme tata yi ñoom ñee nanguwuñ dem fee nee nañ dafa am embouteillage kon xaar ma dugg ci tata yi ma dugg ci tata bi nekk ci ginnaaw bi ñuy egg caaro yi di jéggi raay bi rek benn jigéen yuuxu ci biir oto bi jël nañ sama portable jël nañ sama portable mu ne benn waay yow mi yaa ko jël waa ji ne ko commencé indi ay attroupement di saaga di rek ma ne ma ne ndaw si numéro bi lan la ma woote mu ne 77 nangam ma composé composé dernier chiffre rek waa ji bàyyi portable bi mu wadd ndaw si mu ne mu ngi nii waddal la ko mu ngi nii waddal la ko daal di jël portable waa ji ne ko dama koo jëloon ah ah parce que xamoon na ne bu ñu wootee mu sore ci biir caay ji mu waddal ko nii affaire bi wadd nga dégg ndaw si naan mu ngi nii di wadd mu ngi nii mu ngi nii daal di jël portable waa ji naan waaye barke diw di waat ci ay sëriñ yoo xam ne barke diw gis nga man gis nga man barke diw man ko non démb sama yaram bi dafa daw sama xol bi dafa barke di waat ci benn nit koo xam ne moo tax duñ baax xoolal te ñoom ñëpp yaakaar na ne ku ñuy waat ci ñooñu rek ñoo fi ba ñoo jub moo tax dëkk bi du baax bu ñu sonal suñu bopp bu yeboo ñu def robinet yi mu nekk robinet or pondaal yi nekk robinet xaalis dëkk bi du jag kon lépp la ñuy wekki yóbbu ko parce que nit bu xamul yàlla du baax nit li koy baaxal mooy mu xam kan mooy yàlla kan mooy boroomam lan la ko fi indee fii mu ñëw lan la fiy def su fi jógee fan la jëm loolu dong mooy baaxal nit mbokk yi mu ne sunu boroom dong moom la ñu war a topp moom la ñu war a jaamu wa daawatu lahu laa li gayrihi moom dong lañ war a wooteel waruñoo wooteel kenn kudul moom wa taatu wal itbaau li rasulihi topp ak roy ñeelul kenn kudul sayduna muhammad tey bi ñu divisé jullit yi ku nekk am koo roy ku nekk am koy toppandoo ku nekk am koo bëgg ci la jullit ñi am jafe-jafe ci la yàqute am waaye suñu bàyyi woon jaam ñi ñëpp topp yàlla ñëpp roy sayduna muhammad ñëpp jàng alquran ñëpp jublu xibla kon kon kon jàmm rek mooy am waaye division bi séddaliku bi yàqute gi li ko waral mooy ku nekk jóg di woote te wax nañ sànq ne lépp lu nit di woote te tegoo ko ci yoonu yonent yàlla muhammad ña ngay woo sànku nañu mbokk jullit yi nañu yëg ne innama tajibu taatuhu li war ci ñun mooy topp yonent bi li war ci ñun mooy topp yàlla innama tajibu taatuhu li war ci ñun mooy topp yàlla ndax moom yàlla moomu moo digle nañ topp yonent bi képp koo xam ne kon dañ koy topp nañ ko topp ci ma ngay topploo nit ñi yàlla su leen nit waxee topp leen yàlla topp leen yàlla topp waa jooju su leen nit waxee bàyyi leen yàlla bàyyi leen waa jooju te topp yàlla fa iza amara bi maasiyatin nit bu diglee mooy yàlla kenn waru koo topp laa taata li maxluqin fi maasiyatil xaaliq defal leen ma lii fekk loolu nga wax dafa wuuteeg li yàlla bëgg nit ñi dañoo war a ne lànk defuñu ko defal leen ma lii fekk loolu nga wax yàlla da kaa bëgg dañ ko war a def suñ ko defee nga am tiyaaba ki ko def lu am tiyaaba loolu mooy diine mbokk jullit yi sariya wuutewul sariya wuute amu ci li ñu war a def mooy fala sam'a lahu wala taa képp koo xam ne da ngaa digle mooy yàlla kenn waru laa déglu waaye kenn waru laa topp déglu sax lañ war ta def déglu la kenn waru la déglu tey nag wa man tadabbara ahwaalal aalam ku seetlu dëgg monde bi ni ñuy dundee wa wajada kullu salaahin fil ard mu gis suuf si la koy defar lenn dong lay gis fa sababuhu huwa tawxidullahi wa ibaduhu tey suuf si li koy defar mooy kennal yàlla rek ak jaamu ko kennal yàlla rek ak jaamu ko mooy defar suuf si amul benn plan amul benn doxalin amul benn woote amul benn tëralin tey buy baaxal kaw suuf lu dul li yàlla bëgg akub yonentam nit ñi nañu sonn sànq dama ci ngoon bi may ñëw fii dars maag benn waaye dañu bokk oto ñu gis yàqute bu bëri waa ji di ci wax nekk ci kanam dafa bokk ci dafa wax loo xam ne mu ne dëkk bii dootul baaxaat xanaa beneen àdduna di ñëwaat xam nga loolu mu kooku moom découragé na mu ne réew mi dootul baax lu dul ab yonent di ñëwaat waaye du du am njiitub réew du kilifa diine moo koy defaraat ba mu baax kenn mënutu baaxaat réew mi lu tax parce que fiñ jaarale réew mi moo baaxul yoon biñ bëgg a jaarale jaamu yàlla yi moo nekkul yoon woo xam ne day day baaxal dëkk wax naa leen sànq ne su fekkente ne dañoo tabax dëkk bi tabaxuñu nit ñi nit ñi dañuy ñëw yàq tabax bi xamoon ngeen loolu ñuy wax douze publique fekk na woon fekkoon na leen fi ah ah bi mu yàggee nit ñi niñ ko doon def ah yàq stade yi sax nit ñi buñ ci nekk buñ ci nekkee après nu ñuy def yàq xoola parking bi bii bii parking bi xool leen dem leen ngeen xool defaral sax sa kër ba mu rafet péntiral ba mu rafet guddi da ngay ñëw kër ku gis rëdd ci këriñ wala xoos wala sa oto xoos ah wala ah boo defaree ay verre ñu toj xamoon ngeen loolu ñuy wax télécentre téléphone yi ñu daan def cabine ci mbedd yi bu gaa yi meroon nuñ koy def xamoon ngeen loolu ñuy wax feu rouge ah ñan ñoo ko doon yaa xar yi wala béy yi mbaam yi ñoo ko doon jóge ci àll yi ñëw di ko màtt ñoo ñoo ko doon yàq waaw kon kay amul njëriñ pourtant dañuy defar de waaye ñan ñoo ko yàq xam ngeen autoroute kan ci yéen fan yi moo ngi dem autoroute li tàmbalee Mariama Ñas li tàmbalee Mariama Ñas waaw bàyyam ba mu pare li tàmbalee Mariama Ñas ba Colobane ba nga koy romb ba ba ngay dugg pompier canal yi kubéer yëpp jël nañ ko maa ko topp di xool ak sama bët kanaal yëpp kubéer yóbbu nañ ko ñan ñoo ko jël kaña yi ñan ñoo ko jël sindax yi buubu gole yi ñoo ko jël kon du du tabax mooy defar dëkk dëkk li koy defar mooy nit ñi lañ war a yar jàngal leen yar leen xamloo leen yàlla wallahi bu ñu defaree nit ñi dëkk bi day baax même bu ñu amul ay tali sax dëkk bi day baax defar nañ ay tali est-ce que dëkk bi xatul tali bi xat na wala xatul dèjà nga dégg gars yi ne la tali bi xatul waaye. xol yee xat xoolal rek tubaab bi bi muy defar tali bi ak voie bi ni mu ko defaree code bi ni mu ko defaree warul embouteillage ñii ñoo war a def ñii ñoo war a taxaw ñii ñoo war a def ni ñii ñoo war a def li waaye da ngay gis koo xam ne dafa ñëw ba ci digg tali bi di def demi tour wala mu dem jaar sens interdit nga wax ko mu la la waaye yow gis nga damay daal lay tàggal sa juróom-ñaari maam daggal la ab saaga ndey lu ma yéem lu ma yéem chaque jour damay romb ay pont yoo xamante ne pont yi bu ma ñëwee ba postu caare wala am na benn pont bu nekk wetu sips wala bu nekk wetu nu mu tuddati nu mu tuddati booy dem booy dem booy dem booy dem booy dem booy dem fële Tëngéej pont yooyu damay gis nit ñi ñuy jéggi tali bi bàyyi pont yi waaw damay gis nit ñi ñuy jéggi tali bi bàyyi pont bi pont yi pour lan la woon ne fi nit ñi jaar bàyyi tali bi ak oto yi parce que foofu autoroute la oto yi vitesse la ñuy daw mais nit ñi dañuy ñëw nga taxaw ci digg tali bi oto yi ñooy mujj di wàññi ñu bàyyi pont bi pont bi vide léegi dépasse boobu état bi financé ban njëriñ la mujj am accident yooyu nit ñi ñuy rey ban njëriñ la amati te lu garaaw mooy pont bi bu amul ñu ne pont pont pont pont pont ñu bàyyi ko fa dugg fa am na ci Facebook bi ngeen di gis xar yi di jéggi pont bi nit ñi di jéggi tëli bi au contraire quelle contradiction ñan ñoo waroon jéggi tëli bi ñaar ñoo ñu waroon jéggi tëli bi xar yi nekk ci pont bi de di jéggi nit ñi di jéggi tëli bi non léegi ñan ñooy kan mooy nit ñan ñooy nit ñi foofu ah déet dama leen di laaj bu fekkee nit mooy ko am xel léegi nag xar yooyu ak nit ñi yéen ñooñu di àtte lan ngeen di àtte foofu ñan ñooy xar kan mooy nit ah même bu fekkee nit ki mooy nit waaye fii moom xar mi moo ko ëpp xel wala yal na nu yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp kon doomu ndey yi wa kullu sharrin fil aalam wa fitna wa bala wa qaxt wa taslit adu wa xeyru zalika lépp tey lu nu dal bépp musiba bu dal àdduna bi fitna musiba maral bii ñuy wax nii noonu yàlla jël teg sunu kaw wa xeyru zalika ak yeneen fa sababuhu muxaalafatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam sabab bi du leen dul dañoo war yonent bi yàlla bàyyi noog sunu bopp lillahi allazi la ilaha illa huwa wa kullu sharin fi alam wa fitna bépp musiba tey bu nekk ci àdduna bi ak fitna bépp balaa bu wàcc ci kaw suuf bépp bekkoor bépp maral bu ñu am tey noonu yàlla yi tey rey gi ñuy rey jullit yi sabab yépp mooy muxaalafatu rasul mooy dañoo wor yonent bi ñun julli ñi dañoo bàyyi yonent bi yàlla di ñu mbugal yemuñ ci loolu waaye wa daawatu ila gayrillahi wa rasul dañoo woo nit ñi won leen ñeneen ak leneen lu dul yàllaa ko yonent yàlla bàyyi ñoo suñu bopp nu àl ko loolu kese moo nu lor tey tey bu ngeen xool alamul islami monde islamique ngeen dugg xalige bi foofu ñu naan Asie kii golfe bi amul dëkk bu fa nekk te instant yi tàkkul reyante bal li gën a ruslu mooy tey ci àddina bi yëpp jullit rek la ñuy toroxal partout dans le monde loolu lu ko waral mooy bàyyi gi ñu bàyyi yàlla ak yonent sawaay saxaaba yi ñoo ñu gënoon tuuti wala yonent bi ak mbooloom ñoo ñu gënoon ndaw waaye xoolal ni leen àddina bi ragalee woon xoolal ni ñu sampe woon kàddu yàlla yonent bi génnul àdduna dul islamisé na golf bi julli ñi tey ci àdduna bi ñaata lañ ah lan la jëriñ ban représentant lan lañ représenté tey ci kaw suuf lan lu dul ñoo gën a feebar ñoo gën a ñàkk ñoo gën a torox ñoo gën a yées lii rek ngay gis loolu lu ko waral mooy wuuteeg yonent bi alayhi salaatu wasalaam lu ko waral mooy woo nit ñi wan leen ñeneen ñu dul yàlla ak yonent kon mbokk jullit yi lii moo doon sunu darsu tey mooy aaya bi yàlla di wax ci Qur'an wala tufsidu fil ard baada islahiha ca suratul araf aya 56 yal na yàlla def ci ñu dégg ak topp asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.